Jangan ngeen jëf ak béy na procureur ci biir tribunal ak monsieur le juge comment tu vas yes roi de procureur ça va mais namoon nanu la namoon ngeen ma maa leen raw jóg leen monsieur le président ngi ñëw jërë ngeen jëf toog leen merci monsieur le président mais monsieur le juge tribunal bi si roi de procureur laaj di ba léegi aja fi ne mu man sar. Wah, wah. miray waay nooto waay jaala parol waay ah sama xel namanya na may ma guro ah gisoo man ni ci seen mi fii ñëpp la mi di tey non way aji noppal Fisiper. avant ñuy tàmbali tribunal bi nag yëg ngeen li fi xew sama yaram neexul fan yi téléphone yu xasaw yi ngeen yor nag seen téléphone yu bon yooyu nga xam batterie day teel a bu mu fi woote te kuy waxtaan nga génn ca biti am de euh monsieur le président la parole Adji Sarr def naa xam nga def indi yaa jiñ gos bi viol ak menace de mort <laughs> doom li nga indi diis na de maa xam nga li ci nekk ci risque yow la. waaw kon baax na ana ki lay plaideel. nationale bala ñoo commencé. man. defaatal boobu doyu de. c'est bien moo gën a wóor daal sinon sa kàkk yi yow fu mu loolu. ayca <laughs> ñu démarré. ah waaw. sëñ eh, waay waay waay waay sama euh, mais Adji Sarr ban jour la njëkk a violé. le 2 février bi nga xamante ne Ousmane Sonko ñëw na foofu noonu. waaw après. dafa ñew ñu defal ko massage bi nga xamantene mom la santaane ba paré sama copine ba mu génné après si la sék man sék ak man sék bu métti. moni may wa tuuti métti nga nek ñu jëk violé sa client bi. 21 décembre lan ne ci lañ ko jëk violé kañ 21 décembre. le 2 le 2 février bi nga. lu ëpp la. 11500. ñom dañuy fen fen lañ mën. mu <laughs> yemoon foofu bu neex dégg dégg nga maître lay wax. 31 <laughs> décembre violé nañ ko deux fois. 31 décembre Sonko taxawut ci kër gi. ngi dégg maître mi ngi insisté nee na violé ko ci suur 31 décembre <laughs> waaw Ndeye Khady Ndiaye waxal ci lii boobu. ñëw nañ 15 heures dès soit 19 heures ko ñaari yoon. naa loolu moo nekk ay fen. ñoom dañuy fen fen lañ mën. c'est honte. nañu waxante dëgg. <laughs> mais maximum xanaa da ngeen waxtaan sax yéen ñaar léegi-léegi am déet. ko wax lu jëm ci sama bi mosuñu ko sax di am ay yenn paroles yoo xamante ne day jëm ci man. Ah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 jël huile bi nga xamante ne moom laa ko doon maasewee sotti ko sama kaw. waaw après. egg si man. <laughs> gis nga yow xam nga lu ma bëgg nga tëj sa gémmiñ ngay ñaxal ne moom ko nii. def ak sa kanam gi ni wàcc wàccaaral mel ni ba si mbëng-bëng. waaw la parole. wax yow. léegi nañu dem ca PV ya la waxoon gendarmerie. dafa ni woon sonk turlu ko ci suuf. mais ca kaw table ba mu ko doon maasee la yëggee ci kawam te nee na moom Adji Sarr moo simeekul boppam gis ngeen contradiction bi. discours bi comme APS ñii nii ñii jëm nii mais waxuma loolu aji nga ne da nga am. maa koy dëggal. te yemoo ci loolu nga ne Coca Cola ak café da yàq biir. waaw. waxatuma nga ne day xarit Ndiaye moo la ko digal proposé lu ko pour nga yàq sa biir. waaw objection votre nom. dossier bi nag du ci wax parce que amu droit wax ci mais dinaa seetal sama der. Kami alxuraan la yor kaamil aji nga ne man wax ne nga nan café ak xawma lan nga boré kaag mom pour sa ëmb bi day nga ne yow bi ngay genn kër gi kenn daqku la yow ya demal sa bop nga daw dem sa kër mam nga ne ba ngay duggaat ci bir kër gi man maa la téléphone na la ñëwal parce que kër gi lu fi nekkon amatu fi bu fekke sama kër amna massage bari bari wala yow bi ngay genn kër gi man ma la wala man maa la téléphone na la ñëwaat ci kër gi wala mu waxal na la jëlal café nga naan pour sa ëmb bi daj kaamil alquran la yor bu fekkee lu lal na ci dara yal na ma yalla suñu borom bi toroxal yal na alaku ci lu yalla suñu borom bi bind ma gën ci yees yal na yaq ba faw ba sénégalais yépp tek ci seen bër ay sa man xawmu lu bon julit la xamantene moy Sidi Ahmed ne ko malol ma au moins ca yooyante nag te lu ñu ay jooy doom. man ngi wax ne na dama wax ne daf ma arme. nga ni non. wax ne arme pointé wu ma arme de. tonton pare nga pare na mu ne non paregul. Mhm. lu xew mu laaj leneen. nga mhm. bëgg mu ne boo waxee jënd ay pistolet. ñëpp ñu ngi wax ne na dama wax ne daf maa pointé arme pointé wu ma arme de. ñoom dañuy fen fen lañ mën. li nga def ci doomu jàmbur ji liggéey la. du liggéey ñàkk jom la waaye. bref wax. lu bees. maître El Hadj Diouf li lay wax ci réseaux sociaux yi ñaaw na trop say doom di ko gis ak say nawle dafa ñaaw trop yow nag yëgaloo sa yaram dara dara sëfu yaa ngi mel ne mattum dëj dara sëful sa yaram amoo xol. amo xol bu la waxe ngay xëy weer ak sa buñu tassaro yi ngay melne ku nu xal bomb xol ko ngel bu leer bi du nuro projecteuru stade Léopold Sédar segor man dal yow danga ma jaxal maître ela Hadj xol ko ngel bi du nuro tafesu yara man ku genné etifor la yeram man sa coiffure bu lay gennel etifor kooku la yeram yow etifor fan la lay jaar li ku ko wax xam aji sa mot de la fin ci man dama mën a xanaa lii leer na. yaa ilaha illallah. man mënutuma la sax xool. jarul nga ñuy tere marché parce que jaay nga sa réew doo ko ñuy jàngal ni ñuy raxas soo xam nañ say loxo setul taxaw leen ñu jóg politicien mbalit sax da ko seexlu mag mënoon nañ la dénk kaso bañ la jox suñu dëkk palais mooy denc sàcc rëbës tëj ñi ci dëgg du lu Macky Idi Niass tànk demoo leen abal ñu match bi du tas lii ku ko wax xam foofu laa yem nag wasalaam acca yéen la science élevée acca ñibbi leen allez sortez allez allez allez jaa ngi sama gars maa ngi leen nuyu te leen ziar yéen ñëpp ah bi ñoo ko gisandoo muy affaire Adji Sarr bi discours bi mu def ñëpp gisandoo te vraiment ni ko Sénégal yi doon xaar noonu lañ ko amee ndax ñu bari amoon nañu yaakaar ne discours bu ñëwee du jaar yoon ndax ñu bëri nee woon nañ ñu ngi koy préparé ñu ngi koy préparé bu yàgg la gars yi wax avant ñuy wax gars yi amoon nañ yaakaar ne dañ génn discours te discours bi man dama jàpp ne jëru ko woon ndax dem nañ ba coow li àgg si fii xalif général yi ñaan ba coow li wàññeeku kenn déggatul benn coow kon discours bi di génn indiwaat coow li mën naa ñàkk mën nañoo bàyyi rek di doxal projet bi normalement dëgg féete a féete jàmm ne ñooy suñu Sénégal ñu continuer di ko yor ci jàmm ak salaam doonte ne nag nit ñi bari na def ci yoo xam si ne du yoon yoo si ne teewul fenn booba léegi ñu koy muñ kon nañ ñu dimbali ba mu war a lu yeefin ne rek ñu bañ ci réew mi waaw ndax ñun jàmm rek moo ñu jiig Sénégal yi moom Sénégal yi moom jàmm rek moo ñu jiig waaw am na discours yoo xam ne jëru ko te mbokk Adji Sarr ñoom am nañu responsabilité ci am na yoo xam ne si waruñu faa nangu ñu téye leen manipuler nu mu leen neexee war naa war a ñàkk dara nit ñi am seenu naqar am seen problème ñu war a régler entre entre ñoom jël sa doom di ko utiliser mën naa ñàkk ndax ku ne xam ne ne avocat bi leer Adji Sarr ak Ousmane Sonko moom comme safara kaas <laughs> comme safara kaas mosu ñoo jugoo ci kon bu affaire bi ñëwee demee ñu bari dañuy ñortu li li li Ousmane Sonko di wax complot bi ñu bari moom la ñu ñortu donte ne xamaguñ nag naka la affaire bi demee ci wàllu yoon. mais liñ gisagun moom ku ne ñu bari dañuy jàpp ne complot la waaw waaw mu ngi noonu yéeme na loolu nag dëgg yàlla ndax mënoon naa ñàkk ginnaaw affaire yi dem na ba toll fii kenn déggutul benn wax normalement war nañoo dimbali ba dimbali ci coow li mu fay moo gën daal ñu fi yeewaat fitna ba Sénégal yi di jàmmaarloo ak seeni frère waaw mën naa ñàkk daal ndax policiers yeeg ñun takk der yeeg ñun ñëpp benn lañ suñu maga fi nekk suñu ay nijaay ak suñu ay pap kon mën naa ñàkk am na ñoo xam ne war daw suñu biir ñun ñëpp ñoo far benn lañu li ñeneen réew di dund ñu dunduñu ko yàlla dimbali ñu suñu réew ba mu ba mu sosoo ba léegi fitna moom xanaa lii moo ci gën a rëy fitna ji bu weesoo jamonoy colonial fitna bu rëy nii moom mi ngi fi doog waaw kon ñu ngi santaat bu baax te jégalu ñëpp ah ci vidéo bi ngeen baal àq yéen ñëpp gën nañoo gisee nag mais xam nga rek màggal gee taxoon dañoo demoon Touba yaa gën a xam màggal ko lu kenn moom bu xewlee da ngay teew la waral ñu ngi teew fii waaw ñu ngi leen siyaar ñëpp nag di leen jaajëfal di jox di daje beneen yoon ak ci beneen janoo incha allah jaa ngeen jëf. jaa ngeen jëf sama gars yi maa ngi nuyu yéen ñëpp di leen ziare di leen wax ngeen woy di abonné wu suñu chaîne Voix du Procureur comme noonu ngeen ko gisee ci image bi rek waaw doo ci fay dara te dinañ jàpp nag ci liggéey bi ñu gën a ànd ak yéen ci liggéey bi te mooy tax vidéo bi ñu dugal ngeen jóg ci changé ñu ngi leen jaajëfal yéen ñëpp leen jox dig daje ci yeneen jaa ngeen jëf.